ak El Hadj Ousseynou Ndiaye ñu daal tàng la kay la ko sabab nag moo maanaam daal yeewee askan wi ak ni nga xam ne rek noonu maanaam daal dox ñaxtu yu ñu fi waajal ak ay jëm ci wàllu googu yéen daal jamono ji nga xam ne rek moom moo di diwaanu Dakar jaay jol jëpp ndax fi nga xam ne rek moom moo di Ziguinchor maanaam daal noppi nañu ngir amal lu jëm ci wàllu googu Mamadou Lamine Diallo bu tekki diñu xamal ne jamono ji kay yëngu-yëngu yooyu bu amee ba jaxasoo nañu xam ne njiitu réew mi Macky Sall lu njig njaaga mooy njaag ci ni nga xam ne rek noonu lay dox rek yéen kaay gi di la mandat di ñu xamal ne fi mu toll nii kay réew rek moom la ñu dënn élection yi ko gën a yëngu kay boo moytuwul du am ci réewum Sénégal Yankhoba Diattara xamal ne fi mu kay gars ni nga xam ne rek noonu la ñu bëgg a doxale maanaam daal duñu leen ko may réewum Sénégal ñu bëgg koo yëngal Thierno Bocoum ne ko yow noppil yow kay doo wax katu xamal ne Ahmed Sousane Camara kàddu yi nga xam ne rek yëkkatoon na ko jëmale ko ci Ousmane Sonko ne dañu ko war a faat moom kay jamono ji mel na ni nag tey ji

milliards yéen i kaay xamal ne loolee nag mu jagle ko li nga xam ne rek moom moo di abri provisoire yi maanaam daal la bëgg a dindi ci réewum Sénégal te jamono jooju libération yéen i xamal xibaar gu doy benn élève bu sant Diouf moo jëm paaka moroomam élève mu ñuy wax Omar Cissé mu faatu ci anam gu ñaaw mbir mi nag ma nga xewee ca Kounoune